wax dëgg yàlla moom sama lépp nga te bàyyi ma dem sama kër dafa àgg na sama koor parce que si yéene ma néewuma si sagam yow am na nag bàyyi ma dem. waaw ma ne ñii nga def nag dafa bokk ci fulla bokk ci fayda. Mhm. ngir nit bu nekkee ci béréb dema dema dem bu gisu fa boppam. Mhm. yëgu fa boppam. da da ngay da ngay divorcé. ndax ndaxte ku booy dem ba xamante foo jëm. da ngay delloo fa nga jóge woon. waaw te nag sagam am fi indi woon nag dama xotalal bàyyi ma dem. te nag gis nga aw yoon boo ko wàccee. Mm-hmm. ka nga dajal moo mm-hmm. ba kenn awu ci yoon. dëgg la kon nag yoon wii nga teg comme du saw yoon. Mm-hmm. génn demal man kii maa ngi dem. demal ñaanal ma rek. waaw ma dem sama kër daa waree foofu. parce que fii yow xam naa ni da nga. day dem ci boppam lan ma xew ci kër gi mais moom mii ah lan la taxaw ni day dem ma ne ko demal kumba da génn kër gi macha allah baax na yaatu na mais kii moom fi xatal man nag damay dem xatal moom fi dugal naa ma dem demal yow yaa ko xatal ci kër gi man mii waaw déedéet xatal ma moom kër bëgg dem baa xam nga ne bu génn day am yéen ñaan ñëppay génn waaw bu am ñaan nga wax ak bu am may abal sama kër ndax sonal ngeen ma torop non. Hmm? bàyyi ma dem. non. jël ko. léegi damay dem. non non yaa fi dem rek. damay dem. doo dem de. li nga wax nii. waaw ah. incha allahu rabbi ren. Ah. sama kër laay àggale sama koor. bu soobee yàlla incha allah ci kër gi ngay woore. wóorum ba rek fi nga ko umee. fi nga koy waree. maama Diallo. doo fi jàll de. doo jàll fii. damay dóor kuude. ñu ne ko. ñu ne ko doo dem. même ma jàng. kaay nag ma wax nag suñuy dóor dina wute de ma la dóor sa ba ñett dina faa. man laa waxul bàyyi ma dem sama. doo ten eh. ah, ko moom naa def. maa ngi si jàmm maa ah, ngi si jàmm sant. ana damay dem. doo dem yaa ma fi yaa ma dàq sa kër. dàq ma ndax lan yaw yaa xëy ngàbb sa sànq da ngay dem. yow yow yow loo fi wax sànq sànq day fii ay demal rek ay léeg laa bàyyi ma ñibbi sama keur fly ndogu je daf ndogale fii ngay ndogu xam nga la nak musoo ma yab nag te do ma yeb ah. bayima genn génn man ma kan mo jox bay waay ah kan moo jël ñoxal kan ngi nii waaw kumba ma jël la mesure kan ku yéen ma jël la mesure sama sama ñaw ko rete ay ma mi kumba lu ma jaaral nga fu na ta natal ay ma mi nak ñaw ko rete gi la boy ñaw ma ne 6 morceaux Mas só. Um, dois, três. Dá uma cima, Dorém. Se você mudou, não é tá hum? né? roubai. Ah, bem como é que você não rek tá, nada, ina tal wala ñun ñaar. Am boy. Hmm? Ñun ñaar wala mom kenn não Ku ñoo bay? não mi. não ñoo bay dañu wax. Poitrine bombée et orange. Ah, l'autre là haut. Excuse, excuse-moi boy. não la? 49. 49 coups. sama coup 49 la coup li li tubaab naan mais ñaata la mais ñaata. mais sama mais 63 la fu ñu jëmaat. longueur waaw ok ñaata la. ñaata la. 555. looy la sama dëgg gudd na 655. booy. tubéy. ku fes. booy tey. ñaata la. booy. ok. dafa mën a ñëw bu rafet nag booy. ok maa ngi dem. ñëw bi kon saa yi ñëw. booy. booy. kumba. mais kon coupe ñëpp ci kii kii lan la may. li ma waxoon nag ku yaa a gëm. la li ma la waxoon xam moom li ma wax Kumba nee na man maa koy jooyloo. kër gi sama kër la ku ma la bëgg yaa ngi gis man la ñëwal koy tegi te du la ñëwal. jaaj jaaj ah bu ma fontoo bala nga jëkk nag ci doot doo xam nga dem wuji Kumba wax ak moom ne ko ñaw bi.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 kuy moom. xam la. man ah. ma lii ay ñaw kër kumba bàyyi def nag. loolu ah. tuuti. fii la ma fekk ni ma kumba nee ma la mesure. waaw ah, loolu dara mais kumba yooyu nag yooyu teguma la ko nag. bilaay man ma ko maa ko def lu ma neex daal. yow man amata fay. Mm. yal na yàlla fay. amiin ñu koor gii. Mm. lépp loo fi ñaan. Mm. yal na yàlla ay yiw. ma sekk ku sekk lan la mais lan laa def. lan la jotté yow lo ma déggal wala dañu yàq sama der ci yow wala lan la ah mais man lan la ci kër gi léegi. mbaam. waaw benn ngi ni yi yi ma la lay wax mais man li ma nekkoon li ma amoon li ma joxoon lépp nga teg ko suuf même añ sax duñ duñ ma ko woo duñ ma woo reer du ma man daal kër gi dama mel ni yow lan mooy sa problème. fii problème fii la. bu nekk foofu lu sama yoon. ah kay yow laa ko jox. waaye yow kan moo leen man damaa bëgg foofu ba nga ma koy jox. mais jëloo ko. eh jëlu ma xam nga lan laa lay xamal dama bëgg nga déglu ma bu baax te jox ma sa nopp bu baax. déglu. yow buñ la wowul añ si kër gi wala toppatoowul la sa kër gi kooku sa affaire la. foofu la yow kër bi ba kër gi ni mu toll yow fii nga nekkoon. yaa ngi dégg man yow war nga ci lu may def man maa moom sama alal maa ñaq may xool ki ma neex ma jox ko ko li ma warloog yow maa ngi koy def bu ma attaqué ti de. non li nga war lok man yaa ngi koy mais dafa am lo ci wàññi ah. dang may lok de dafa am lo ci wàññi. li ma war loog yow dafa am lo ci wàññi. wa li nga ci wàññi xam nga ko. yow bu mako ko wàññee sa sens la kon bu ma attaqué ti de nga muccu tay te la njëkk tay est-ce que yaa may deg euh, mais boko set lol deug deug yow yow mbëggeelu kàkk tal nga yoraa. Euh, man benn affaire rek laay ñaan keug yi mo mo fi indi motax tax ma xam la bëgguma nak ngeen am ay problème jógee si man si kam noonu la demee bàyyi ma jël sama bagage dem ñibbi sama. waaye dama man dama maa teg problème yow. yow yaa moom kay yow mën na maa teg problème yow. man maa la may kër gi. maa la koo jëm nga ni maa la. kon dëgg maa la may kër gi yow. yow yaay buum yaay buum bi tojal kër gi ba xam ku ci wax dara. eh yow xam nga ni man mënoo maa réer ci dëkk bi bu ma fonton laa la wax yow fan nga nekk. dimbali ma sa yoon nekku ci. koy waxal dimbali ma. yow laay waxal. yoo xam nga ne temps yi li ma ñàkk jot moo tax juguma ci yow dama bëgg nga wax ma fan nga nekk bu ma fontoo dégg nga. yow may ma war ngaa lijjanti lool li ngay irresponsable yëpp. Eh, dugal nga dem dugg sa biir ba set te toog hmm? li ma wax kay leer na. tanta tanta gis naa ko. sama jëkkër ji. rek. anam anam bu ma dooroon sax mu neex tanta. ma sonn na. anam dugal kaay ci man yàlla desuwaay. di lay si jëkkër ji gàddu na sunu àq. damaa xamul lii kañ lay jeex waaye nga gis ko rek di daw di rëpp rëppi doo taxaw rek dal kii daa yóbbu sama fit bi xamoo li may def kii dafa bon